Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre télévision nationale. Nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois dans Team Qatar. Team Qatar qui s'installe à l'instant. C'est votre émission qui vous parle de toute l'actualité de la Coupe du Monde du côté de Qatar. di leen nuyu di dalal ci émission Team Qatar euh, saa su ne nag ñuy am mbégte bu rëy jàkkaarloo ak yéen wax leen rek li nga coupe du monde bobo ni ma koy defee bu jot sama panel d'experts Salam, laa Malé, nuyu dalal di la dellu nuyu Fatimata di nuyu coach Diallo di nuyu Ban ak Sadio di nuyu Sénégal yep. mais aussi di beral loxo Ibrahim Mboub ak équipe am. waaw macha ils sont en train vraiment d'abattre un très grand travail man dama leen di hall, xool décalage horaire bi. ma ni nit ku nekk war nga am passion métier. dëgg ah, donc loolu bëggoon naa ko vraiment seede. Mm-hmm dilen encourager encouragé moom ak ña fa du fàttewu maman sœur Françoise waaw merci beaucoup euh, dina len ko yeggee parce que euh. lolu moy sen mission également euh, ma dalal la nuyu la Mamadou Diallo wa Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu coach di nuyu sama ñaari xarit yi <laughs> ki nga xamné ken xamul Angleterre la boko walla Portugal aussi yow tamit di la nuyu baax parce que xam naa ne tey supporté nga supporté nga Maroc. ah man moo tax sa rouge rafet na quoi. damay supporté Afrique parce que dañu buggoon tey bind beneen page bu bees ci wàllu euh, football mais nag taxul ne duñu yéene France li nga xam ni moom la am. moo tax nag baan ma bàyyi la nga nuyoo. waaw di la nuyu bu baax Fatoumata di nuyu coach Salam ak si Diallo ak euh, Moustapha Sadio di kontaan lool teewaat fi nga xam ne mooy ci plateau bi di nuyu tamit. suñu mbokk téléspectateurs yi nga xam ne saa su ne ñoo ñuy bëggee toog di ñu di ñu seetaan di fedde rek di felli rek ci nga xam ne mooy côté salaam félicitations yi ci ñoom ñoom Ibrahima surtout ak euh, commentaires yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi def ci match yi euh, yombul métti na trop mais jàpp nañ ne ñu ngi koy def ni mu waree boole kook liggéey bi nga xam ni ñu koy def yëpp diñ ci yónnee ay éléments di leen félicité bu baax a baax. waaw dañ leen di rendre hommage également ma nuyu la dalal la Moustapha Sadio. maa ngi lay fay Sawane di kontaan guddi bu nekk di feggoog yow plateau di ko partagé ak euh, Aziz Ban ak sunu expert coach Salam Lama coach Mamadou Diallo ak tooñam yu bëri. <laughs> moom Ban Ban waroon feeñal mooy Portugal <laughs> tu as donné le bâton pour me faire battre du nuyu téléspectateurs ñu ñuy suivre fii ci Sénégal ak bitim réew. bitim réew ñoom nag ñu ngi ñu fay suivre bu baax a baax a baax euh, ci loolu nag gis ngeen ne tey moom euh, France dafa rek daal di daan ñi nga xam ni ñoom ñooy Maroc ci ñaari bal euh, ci dara mu mel ni jamono ji ñuy wax nag wure ba jëm na lool loolu la ñuy wax ah. waaw waaw wax mag dem na dañ taali parce que nag li des rek mooy la grande finale te xam nañu kan moo koy joué Argentine ak France lay doon waaye nag balay loolu dina am beneen petite finale boo xam ni

Euh, foo xamante ne mën nañu jàpp ne euh, dëkk boo xam ne la bëri na ñoo xam ne ñu ngi fay yeewoo euh, xale yi nga xamante ne seen parents yi dañ fa dem ñu juddoo fa yaroo fa nekk ay français à part entière defe naa ñoo ñu tey jii am nañu mbégte ci seen équipe même su nekkante ñu bëri ci ñun bëggoon nañu Maroc yegg fenn fi ci biir coupe du monde bi mbaa na match boo xam ne xëy na bëri na daal changement visage bu mu def tout au long des quatre-vingt-dix minutes football dafa dafa évoluer mm. te Maroc ni mu doon footballé tey da koo wàcc mm. te li ko waral mooy adversaire bi mm. adversaire bi moo ko ñëw démb coach bi mi ngi wax wàllum possession ak yooyu yëpp di wax mais tey jii France da koo nax Deschamps da koo nax ñëw bàyyi ko possession bi ndax booy xool ci possession bi moom Maroc am na 61 pour cent France am 38 pour cent kon nga jàpp ni tey Deschamps dafa ñëw bàyyi ko possession ba pare dékku ko ndax xam na ni lu mu bon bon dina ñëw ci kawam mu ñëw teel a nag dugal ndax ko su jàll mi ngi wax démb France bu Maroc bon def la tout ba mu a teel a encaisse mm-hmm. match bu demee nii te jëloo woon but boo xam ne dañ la ko dugal bu yaa ko dugaloon sa bopp mm-hmm. but biñ Maroc jotoon jël mm-hmm. juróomi min rek nga jël but day am lu bëri lu muy lu muy lu muy wàññi Euh, ñi nga xam ñooy bële ci ci euh, agerde ci euh, bi ñuy échauffé wu. Mm-hmm. ci la ci la ci la ci la am gaañu gaañ moom it génn ñu ñëwaat ki nga xam ne mooy Saïs. seen capitaine bi waaw capitaine bi moom it mu ñëw génn nga ko gis ne équipe baa ngi commencé commencé wàññeeku même ñu demee ba deuxième mi gis ñoom bu faal génn mm-hmm. ki nga xam ne mooy NSR tamit daal di daal di génn nga xam ni tey jii Maroc. affaire yi affaire yi doxul mais surtout e-, efficacité devant mm-hmm. moom la Maroc manqué tey tey efficacité boobu ñu ko xamee woon xam ni contre équipe yu ndajeel yëpp dugal na ci nga ñëw tey jii mu réer la nga xam ne nag ni bisu defet daal bu ñëwee rek mooy bisu defet ñëw na. waaw Moustapha Sadio c'est vrai que dañu gisoon tey benn Maroc boo xam ni euh, benn instant contrôlé woon na match bi mais juste après but bi. Euh, dafa metti à la limite deuxième mi-temps bi sax la ñu gis Maroc bi ñu xamoon na attaqué en même temps doon défendre mais après euh, dina finir par par par craquer parce que euh, pression bi dafa metti absolument d'accord naa yow Ban aussi def na analyse boo xamante ne sax am parce que possession Maroc waru koon mësa nangu jël mm-hmm. je pense que mënoon na jàpp ni man lii mooy sama force depuis compétition bi commencé j'excelle su fekkee équipe B moo yor bi mm. pour procéder parfois a des contre-attaque am récupération haute Nous, une transition une transition. Nous ci transition parce qu'ils ont de très bons joueurs balle au pied comme à la passe mm. mais on l'a vraiment piégé Il faut que nous Nous ko Didier Deschamps je pense que Ken Fan au fi mais. Mm. léegi foog ñu nangul ko. qu'on euh, vraiment c'est un fin tacticien. faut mm. mine aussi. Mm. Euh, compétition internationale. je pense bii 5 euh, cinquième compétition internationale depuis mon nekk France ba léegi 2012 def na coupe du monde 2014 2018 2022 def euro. Moi moi def. erreur bi nga xam ne mooy erreur bi a xam c'est ça tenter interception. ci action boo mais parfois da ngay def faute hein oui mais justement empêcher l'autre de faute la yoo voilà d'accord naa ak yow foofu bah mais loolu sax warutoon am sax dafa waroon juste ëmb waa ji rek mu ànd ak moom ànd ak grisement su nekkee am nga expérience exactement voilà c'est ça exactement quand tu n'as pas l'expérience feeñ na ci match bi mais vraiment man dama jàpp ni Maroc dafa tombé les armes à la main parce que bu ñuy encaissé sax un zéro mm-hmm. mënoon nañ jàpp ni ki dañuy imploser tey mais mun naa diggante cinquième minute ba deuxième but bi muy dugg Maroc amoon na de belles situations contrôlé na match bi inquiété na France

Euh, demi-finale bi nekkoon na demi-finale bi nga xamni en aucun cas du woon yomb ci Maroc même bu fekkee dina mettre aussi ci France mm-hmm. Maroc amul won lolu amul won finisseur mm-hmm. Maroc le danger venait de toutes parts mais ñee Diallo yag na di ko wax mm-hmm. sen attaque bi au moins dañuy valoir deux buts par match muy Giroud di di Mbappé di Dembélé

commencé la demi-finale avec sa meilleure équipe. Mm. donc li de wax récupérer avec le côté médical le maximum de jours bu récupérer nous pas, nan retaper. Si boo gisee euh, Maroc Nim Foubalé, mm. l'entraîneur n'était pas serein. parce qu'il savait que y avons des manquements mais joueurs dañu mais grandeur Maroc mm. même avec tous ces manquements là quand même, à des moments donnés, ils ont fait jeu égal avec la France. Surtout en deuxième mi-temps. Mais c'est une but matinale, à la cinquième minute, quatrième minute, mais bon moment dag sen tank. Et puis, dans les Wani, Didier Deschamps, la France, mais quand même, le meilleur reste la France. quoi. c'est ça, c'est une belle, Ben, victoire logique selon eux, parce que de toute façon, joxoon nga favori quelque part France mais doon nga wax ne Maroc na fexe ba bu mu jël but mais loolu moo mujjee am waay bu mu teel a jël but surtout waaw xam nga euh, fi ma ko tegoon d'abord boo xoolee match bi neewoon naa leen euh, Didier Deschamps mm. dafa nekk entraîneur boo xam ne dafa intelligent mm. et je pense que match bi li ko gagné entraîneur bi bokk na si lu tax ma ne entraîneur bi bokk na si mooy tey des Deschamps personnel, même si je football, hmm. comme entraîneur, le c'est hmm. hmm. un rêve. Ça a donné pour moi calculer l'équipe. C'est un rêve. Je calculer l'équipe. Il fallait récupérer le ball. C'est ce Déjà, dans le classement, le Maroc a fait avec 5, 4, 1. Le Maroc a fait avec 5. Didier gens a fait avec 4, cinq un la njëkke milieu bi la njëkk milieu bi la gën a dëgëral moom waa def fa cinq waaw comprendre mhm. déjà loolu dafa am lu muy wane boo xoolee match bi Maroc moo déminé mhm. mais li mu déminé xool leen France saa yu yàkkamtiwuñu mhm. mais saa yu ñu téyee ballon bi dañuy dawal dawal dawal dawal ba mu terminé si gardien bi tout parce que boobu ñëwuñu forcé marocain parce que ñu ngi préparé si ginnaaw pour mën a am espace bi bu tax saa yu ñu bu compliqué rek ballon bi si gardien bi lay mujj xoolal lu si bari day ñëwaat delluwaat ñëwaat delluwaat parce que boobu ñu ngi préparé wu si bi préparation bi ñu préparé wu euh, comment il s'appelle euh, le numéro sept là Griezmann def appel appel bi mu def déjà dafa nax défenseur bi mais ma doon défenseur bi du ma jaayu. du ma jaayu. léegi leen ray mooy dembale biñ ñu doon sóor. waaw demul non c'est parce que ñu ngi sóor dembale. ñu ngi sóor Mbappé. Euh, mhm. Griezmann Giroud daw na. Mhm. Griezmann ñëw na. te boo xoolee Griezmann moo gën a dangereux. parce que moom mooy jouer comme numéro 10. waaw ballon ñuy yor yëpp moom moo leen koy jox. Mhm. moom moo aspirer ñu passe ko mu bàyyi bal bi génn rek mu continuer course même boo xoolee bi muy dugal ah, moo tax ñuy jàngal gardien de but bi da ngay daanu ñu waat nga jógaat mais defu ko mais loolu yëpp dafay wane ay signe de fatigue mais si biir loolu newoon naa ne Maroc bu njëkkee bu def lay attention day teel a jël but parce que Maroc dafa réaliste woon mm-hmm. mooy dina taxaw mais réalité bi tey contraire bi contraire bi. Moi, la suis la France voilà euh, dinañ déglu kenn ko dafa def euh, exploit euh, premier buteur bu équipe de France moy Théo Hernandez ñu un côté non vraiment c'est c'est incroyable non hein. jouer deux finales de la Coupe du Monde ensuite c'est un moment incroyable on a fait un beau boulot c'était dur mais là on est en finale. on sait que c'est un gros match on va bien travailler pour gagner cette finale aussi une, une grande pensée à mon frère que j'espère qu'il va être là pour la finale. C'est un moment incroyable. C'est un moment incroyable. Euh, là, je vais voir avec euh, ma famille, les, tous les joueurs et, le coach aussi. voilà un moment incroyable Mom, dafa mel ni gëmagul ne ñoom la nañu ci pression Maroc bi moom ci kaw français il fallait que ñu jàll ci li nga xam ni match bi Didier Deschamps itam wax na li nga xam match l'émotion la fierté Évidemment, c'était une marche euh, encore importante aujourd'hui. Il y en aura une dernière, mais voilà, depuis, ça fait un mois qu'on est ensemble avec les joueurs. Et c'est jamais simple, mais voilà, ça a été du, du bonheur jusqu'à maintenant et que mes joueurs soient récompensés, l'ensemble du groupe, pour pouvoir euh, voilà, aller chercher un titre dimanche. C'est merveilleux. Écoutez, on prend le temps. C'est ce que je dis. Euh, personne de mon staff et aux joueurs aussi, pas trop aux joueurs, mais de prendre euh, chaque moment dans la journée, voilà, d'apprécier, savourer. Faudrait suspendre le temps, mais on ne peut pas. Donc, euh, dans quatre jours, on va, on va jouer un titre mondial. Donc, savourer et puis basculer pour le dernier match de cette Coupe du voilà, basculer pour le dernier match de cette Coupe du Monde. Ils ont la chance de la, de la jouer. Euh, Moumeni France euh, ginnaaw bi jouer li nga première finale 2018 euh, mu ngi ci teg beneen mu mel ni ñaari toppante yi mi équipe de France Sadio mu leen di France bi bi mooy quatrième finale coupe du monde après 98, 2006, 2018, et donc 2022. C'est la première fois que la première fois ñu Si nous gagnons l'Argentine, ce sera la première fois que nous avons def lu Italie ak Brésil kese def dans l'histoire conserver ce titre mooy loo xamante lu fait la may on on peut compter sur cette équipe là et sur cet entraîneur là. C'est vrai hein. vous avez éliminé l'Argentine si je ne me trompe pas coupe du monde passée. Aussi, le huitième de finale. Huitième de finale. 4-2, but de Pavard, tout ça. Mbappé, Torokhalen, tout ça. Donc, ça <laughs> y retrouve. <laughs> Hein. Mais je pense que dina nekk euh, Coupe du Monde boo xam ne day différent. Mm. parce que ni may waxee moom xam nga man France moom dama leen pas faral mais dama dama gis seen qualité mais je pense que bii ce serait totalement différent ouais mais tey Salam dañu gis benn benn benn équipe de France boo xam ne dafa mel dafa imperméable pression bi. parce que mhm. gisoon nañ ne euh, supporters yi stade bi Maroc lañu ñu mais dafa melni ñom dañu taxone ci lolu nek ci sen biir match lolu itam defe na 30 grands joueurs, là aussi ak euh, équipe bo xamné am nañu expérience. Oh, mais c'est l'expérience qui fait la différence hein ñi am impression. moy mhm. ñu masul gis public bobu <laughs> mais ñi composé équipe nationale France. mais c'est des jours yi nga xamné ni nañu du gis public bu mel noonu donc c'est des gens qui ont une quel que soit leur problème quel que soit ce qui se passe quel que soit événement pour déstabiliser l'île, c'est toujours un problème pourquoi parce que pour nous dépasser ligne blanche bi rek a problème derrière la ligne blanche ben concentrez vous dans les défis de métier un véritable professionnel c'est comme ça qu'il fait ah, donc mën nañu sax am ay problèmes familiaux wala dara. Mhm. mais teewul dañ koy bàyyi derrière la ligne blanche dugg ak mom concentré wu def sen job ba paré gennat botat sen ay problèmes wala dogay révélé wat bon souvent day dég jour yi di wax ni quel que soit li nek autour du stade c'est 11 contre 11. Mon moyen, quelle que soit la situation tu fais abstraction de tout ce qui se passe. motax après yu bare dañ leen koy netali mhm un grand professionnel le barre dans lequel Nathalie quand tu quand tu es actif donc euh, euh, effectivement ils ont fait abstraction parce que tout le stade était rouge mm-hmm. et vraiment ne nous pas ni quand même Qatar Ragalon nañu coupe du monde mais bari mm-hmm. mais quand même c'est l'une des, des, coupes du monde les, les mieux plus organisées ou bien les une mieux des organisées. Plus belles, ouais. Moi, je pense qu'avant la, la finale, on ouais, peut dire que c'est une grande réussite. Ah, C'était ouais, c'est une très grande réussite. Ah. Euh, tey bu ñu gisee Reug Ragué ak euh, li nga xam ne la teg en tant que tacticien c'est vrai amoon na ay manquant yu bëri euh, ci li nga xam ne mooy effectif mais joueur yu xale yi nga xam ne daf leen mujj di di essayer di dugal lan la bëggoon def exactement dugal du 109 wala essayer contrecarrer li ko France indi xam nga tey boo xoolee njëkk nañ ñëw sànq ki laal na ko Sadio donc euh, wax na si même côté joueurs yi gaañu yooyu yëpp mais après foog ñu comprendre ne football entraîneur boo gis salaam mii toog ni bu yoree vingt deux wala vingt six jours am am na ñoo xam ne si ñoom la gën a compter mun nga compter si effectif bi yëpp mais pour waxantee dëgg am na ñoo xam ne si nga gën a compter mu ngi mel ni tey Sadio Mané bi mu génnee équipe nationale Sénégal gaañu munoo ko remplacer ak keneen ku nekk nag mun nga am sa caractère mun nga am kii moo tax ñu ne la même boo yoree équipe dangay am say soldats yi nga xam ne ñoom ngi gën a wóolu léegi si côté boobu après foofu am na jour yu gaañu mais loolu si médecin moo koy définir parce que ku si nekk da nga si am sa rôle tey entraîneur bi lu mu bëgg a loo jour bi jour bi médecin bi ne ko kii munul ci mhm. du jël risque bi parce que lolu c'est c'est normal. la santé avant tout la santé avant tout. légui nak di nga tollu fo xamné jour yooyu da nga leen def confiance de trop. nga ne xaaral nga xol leen. parce que am nañ yaakaar essayer essayé nañ dina wara mëna dem ñu yaakar lu ñu ne xaaral ñu xol leen si biir xol bobu nga leen xolé moy permettre si feuille de match yi retard am parce que mu def dernier essayage bi. ngay essayé ça peut arriver parce que ça peut arriver même dans le milieu professionnel. professionnel mais après. bu jour bi mun lay dem après mun na am feneen fu mu lay handicapé mhm. après là tu es obligé pour mu ñëw joxaat jour bi confiance mhm. te or que munoon nga génnee kooku wax ak jour bi jéem ko jox confiance jéem a retapé ko jéem a préparé kaax yooyu yëpp es est que que gënuloon ñoom ñu préparé woon justement ñaari défenseurs yu apte nga mhm. tel len quatre jours durant nga préparer Eliamik préparé Ashraf Dari wala Badr Benoun des joueurs apt même si amuñu expérience bu Romain Saïs am ak à euh, Aguerd mhm. mais nga préparer len en quatre jours ñu intégrer ni que ñoom jouer contre France plutôt que ngay jël risque parce que risque quand même am na fa moom expliquer. nekk di nek may moom mom la expliquer dilay expliquer. ni mais lolu aussi lepp day dépendre si entraîneur moy li ma lay expliquer ne la ku si nek yow tey yaay tok sa kër. yow yaay xam ku nekk naka nga koy jëlee ak naka nga koy football. voilà dañuy dem déglu juste euh, Walid Regragui moom mooy ki tàggat euh, xale marocain ñu dellu ko. Là, on a donné le maximum, c'est le plus important. On a eu, euh, on a eu quelques blessés qui nous aident pas. On a perdu euh, à guerre dans l'échauffement. Seis, Mazraoui à la mi-temps. C'était un peu trop pour nous, mais j'ai rien à dire parce que les joueurs qui sont rentrés, ils ont donné le maximum. On a été au bout, du bout, du bout. Et après, contre une équipe comme la France, la moindre erreur, euh, elle est payée cash. On rentre pas bien dans le match. On a eu beaucoup de déchets en première mi-temps. Et on peut pas passer en finale avec autant de déchets techniques que la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a eu des situations, on n'a pas marqué, puis le deuxième but, il nous tue, mais, mais bravo, ça n'enlève pas tout ce qu'on a donné avant. Mais ça va être dur mentalement, on va surtout donner aussi beaucoup de temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué, parce que tout le monde doit participer, mais on a envie de finir troisième. Et on a confiance en tout le monde. Le plus important, c'est d'avoir donné un beau visage, d'avoir montré que le football au Maroc existait on avait des beaux supporters et que voilà, pour atteindre le très très haut niveau, et aller gagner une Coupe du Monde, il va falloir encore travailler, mais on n'est pas loin. il est très cash avec lui-même et je pense que l'OL c'est important mais dañuy dem euh, faire, ca Doha que fa Ibrahima Mboup nuyu dalal team Qatar. Ibrahim

waaw mu mel ni tey nag euh, dund nañu match boo xam ne xëy na ni mu jeexee du noonu lañ ko bëggee woon waaye nag comme lu wax rek doole yemul tey France li indi euh, Maroc mënu ko woon dékku même bu nekkoon dafa bëggoon défendre tout le temps du match. bon jàpp naa ni ci match bi Maroc marocain yi rivaliser nañ bu baax ak euh, équipe de France dans le jeu dans la possession booy xool sax possession bi tey bi match bi di jeex équipe bu Maroc bi moo ko ci football bi yaakaar naa ni euh, Maroc euh, rivaliser na bu baax équipe de France malheureusement Maroc dafa teel a jël but cinquième minute nga jël but après fi mu bëggee égaliser tamit France dugalaat beneen ci ñaareelu pàcc bi. loolu moo gën a sonal euh, équipe bu Maroc bi wante jàpp naa ni ci ci football bi ci engagement bi équipe bu Maroc bi wane na xar kanam boo xam ni xar kanam bu bu baax la.

tenir teniraat place am ba jongante bi jeex contre la France gis nga moom tay agalé wul euh, match bi muy ay blessure yo xamni ak Mazraoui Nasser Mazraoui aussi il était forfait ci match yi ñu passé reg-reg yi def ko ci 11 bi momit en cours de partie mu blessé boy xol Maroc défense bi ñett ci ñent ñim mu doon teg ñëpp dañoo am ay ay gañu gañu lolu xawna diminuer tay euh, solidité bi Maroc amone ci coupe du monde bi loolu moo tax tey ñu jël euh, ñaari bi wante mën nañ ni euh, logique bi respecté nañ ko parce que France mo nekkoon euh, favori ci jongante bi parce que France mom moy champion du monde wante japp naa ni équipe bu Maroc bi warul rougir ci prestation bi mu def té prestation bu bu baax la am regret am déception wante ci football bi ci engagement bi marocain yi def nañ li ñu def. mu dese leen la nga xamni moy 3e place euh, ñu war ko jakarlo ak Croatie yakarna lolu Maroc euh, bu ko yalla jàppale war na ci mën a génn ak effectifam bi fekk mu am ñu ci tane bien sûr. waaw dina jafé nak parce que ñu ci bëri ay blessure musculaire la ñam dom nga blessure musculaire ci football euh, du lo xamni ay fan lay jël ay semaine lay jël parfois mën nga tok 2 3 semaines wala un mois wala plus ça du ay blessure yo xamni ay blessure yu gaaw wër la xam nga troisième place moom du bu neex euh, parce que day fekk ñaari équipe yi nga xam ne ñoo am déception bu a mag temps bi bëriwul euh, ñaari fan rek la ñaari équipe yi am pour préparer troisième place boobu wante am na enjeu parce que enjeu bi Afrique jéem a ci Coupe d'Afrique ji Maroc troisième yek ci Coupe d'Afrique loolu tamit daf koy euh, am enjeu boobu enjeu équipe Maroc dina jéem a def lépp lu mu mën euh, pour euh, mën a dem ci li nga xam ne nii moom mooy podium bi. waaw loolu am na solo dafa mel ni Abdou Aziz Bane am na laaj pour yow. Alaaji Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax di la masawu coono it di la féliciter tamit ci ci direct bi affaire yi am na solo trop euh, tey jii Maroc tam boo ko gisee Ibrahima mel nañoo bàyyi seen seen mënin surtout tey ci attaque bi. bu ñu amee lu leen naqari rek mën nañ ko teg seen occasion yi nga xam ne dañ koo manqué ndax bis ko dugaloon marché bi dina dina demee neneen Ah, Ban ah, tu as raison en ah, Maroc euh, a eu ay occasion mais malheureusement efficacité n'est pas au rendez-vous bon xoolee sax matchs avec ak Espagne loolu nous leen yóbbu au but parce qu'à un moment donné joueur jour, mel ni Chedira nga xam ne tey dañ ko parce que dafa carton rouge le quart de finale bi dafa raté ay occasion yu franche euh, contre euh, contre Espagne mais tey gisaat nañ ni ci attaque bi amone na occasion yo xamni Maroc mënon nako koo mais parfois y a eu beaucoup de mauvais choix parfois ya xamti lay don euh, loolu motax euh, ñu gâché occasion franche yo xamni mënon mënoon na leen permettre tay ñu ñëwaat ci ci match bi surtout en fin de euh, première période ak ci deuxième période bi Maroc am na ko fa budul ben du ñaar wante efficacité bobu nekuloon au rendez-vous te xam nga au niveau mom ak loo ci mënti dégg efficacité la football bi lu mu rafet rafet te dugaloo. Do meuna gagner ta bo amé équipe bu melni équipe de France nga xamni équipe bu bu pragmatique la meuna am ben occasion dugal ko taxaw ay kam so dugalul rek mom dala def dat lay dat lay gagner te tay yaakaar naa ne loolu moom dal Maroc.

Beaucoup ko posé question Nous tamit ñu def fa ambiance tech musique mu amoon ay euh, légende football français yu fa nekkoon ku ci Jean Pierre Papin mon mi ngi ci vestiaire bi ginaaw euh, match bi Blaise Matuidi aussi nga xamni il est champion en 2018 Nous ñewna spécialement pour match bi momit fait le na ci ci vestiaire maintenant pour revenir euh, ci déception bi wax le la joueur Maroc yi amone une déception supporters yi tamit naturellement tay dañu mobiliser won ñew en masse moo am 30 vol yoo xam ne nii ñoom ñoo jógee Casablanca bërki démb démb ak tey ngir euh, gën a dooleel équipe bu Maroc bi supporters yooyu tamit euh, am nañ déception wante bi marché bi di jeex boo xoolee wala boo dégloo di leen gis ñuy tàccu di encourager seen équipe parce que xam nañ ni parcours bi parcours bu rafet rafet la Maroc nekk équipe bu Afrique bi nga xam ni moom moo njëkk a dem demi-finale coupe du monde tomber les armes à mu mel ni eh, Ibrahima tey eh, salaam laa mi ngi ko doon wax sànq nee na mi ngi leen di sargal ci liggéey bu am solo bi ngeen di def foofu yow ak Ndeye Doom Diouf ak Papa Laye Ousmane Cissé Mamadou Diagne ak Omar Ngebane nee na jàmbaar dëgg ngeen ndax nag malgré eh, que ñibbisiw leen yéen a ngi foofu mais lépp lu xew yéen a ñu koy digtal ba pare teg ci di commentaire match yi nee na mi ngi leen di sargal bu baax loolu nag grand salaam moom moom mooy moom mooy salaam daal dafa baax <laughs> merci merci coach Salam merci ah, lolou moñu ñu en hein, ça Fatoumata Savané Le mu metti metti le goudi goudi aussi euh, on est là pour le boulot pour permettre téléspectateurs yi nek Sénégal ñu xam li nga xam ni moom moo fi xew bon donte ni Sénégal euh, toog bon direction générale RTS dafa def choix euh, ne équipe bi day des au Qatar pour continuer couvrir euh, li nga xam ni moom mooy match coupe du monde yi. def tamit ay booking pour position commentateur xam nga loolu aussi xaalis bu bëree bëri lay jar parce que fi mu rek pour am position commentateur ci demi-finale ça a été ça a été très difficile parce que pays yi nga xam ne dañu qualifié seen média yi. Nous avons une priorité au niveau de la FIFA pour euh, réservation et pour jënd position commentateurs même pour des conférences de presse ou la zone mixte n'est pas évident FIFA est obligé de ay choix toujours des privilégier nous avons des journalistes du pays par exemple le final bi ñu jëm course contre la montre la parce que nous avons une position commentateur entre argentin et et français nous avons une priorité bu desee nak yeneen pays daal di daal di jël te nga nag FIFA du maye dara lépp daf koy jaay donc tout s'achète pendant la coupe du monde amul lenn luñ lay luñ lay may. waaw événement bu mag la itam muy deuxième événement bu gën a mag ci wàllu sport après Jeux olympiques c'est très normal euh, ñu lay jaajëfal Ibrahima di la wax nga noppaluku te jaajëfal ñu également équipe bi nga xam ne ñu ngi fa euh, di leen sant di leen gërëm ba ëllëg incha waaw jaajëf Savané ñi ngi soog a jóge stade ni ñi ngi ci yoon bi àggaguñu sax dañu mujj arrêté pour mën a def euh, direct bi ah, ma bàyyi leen rek ngeen euh, wëyal seen émission di ziar ñëpp ñi nekk si si plateau bi encore une fois. Merci beaucoup Ibrahima très bonne soirée avec euh, toute l'équipe de la RTS déployée à Doha pour les besoins donc de cette coupe du monde 2022 euh, dani wax euh, déception dani desandi ci déception ki nga xam ne nag ambassadeur bu Maroc fi Sénégal de Hassan Nasri tey seeti de nañ ko seetaan nandoo ak match bi naam nag gañewul waaye bi mu paree dénk nañu ay Nous avons une bonne équipe euh, et je crois que c'est une équipe qui honore le Maroc, qui honore l'Afrique. Et ça montre aussi que quand le travail est bien fait, euh, ça ne peut qu'être payant. Donc euh, je crois qu'en fin de compte, euh, c'est ce qui compte dans tout cela, c'est-à-dire d'abord de mener le jeu jusqu'au bout et aussi de le faire avec détermination, avec conviction et aussi avec responsabilité parce que vous avez les, Marocains derrière, vous avez toute l'Afrique derrière. Et je crois que le Sénégal est, un bon exemple de ce soutien euh, jusqu'à l'infini, soutien des lions aux lions. On aurait aimé donc euh, euh, un résultat différent, mais c'est ça le foot, c'est ça le sport, on gagne et on perd tout simplement. Mais nous sommes déjà dans le, le corridor, n'est-ce pas Parce qu'après, on va jouer pour le classement voilà mu doon Nasri doon ki nga xamni ambassadeur Maroc won nak li nga xamni moy je ak jeune marocain yi fi nek, ak nga xamni ko ci résidence am résidence Sadio mu doon lo xamni rafetna bu ñu neex mais li wax rek la wax dafa euh, ki nga euh, Maroc démérité wul parce que a ni mu joué baax na sauf que dafa amul peut-être chance tey. absolument vraiment ambassadeur amna mo yo xamantene xamante ne euh, wax na ko mais fierté am lañuy retenir malgré déception bi. mais c'est surtout euh, soutien bu ko Sénégal bu woon bu Sénégal woone pour mm. Maroc yàgg nañ ko fi wax ci ci ci ci plateau bi <laughs> ñoom Mamadou Diallo du ñuy sax man analyser match Maroc yi parce que nu mu koy waxee dañu far soo faree nag doo am sax objectivité mm. c'est lecture da donte da ngay da ngay am arrière pensée ni jàpp France moom vraiment day yéeg ci kaw Maroc mais yow sax da bëgg euh, bay un peu de suspense am voilà exactement ak exactement sans plus euh, chaque fois man loué cette Moi, chaque fois Maroc bu qualifié place de l'indépendance day fees del ak ay marocains ay sénégalais ñuy fêter mun bëggon nañu lolu ce ce soir mais bon vraiment ils sont tombés contre plus fort te ah, fi fi la ko yàlla yemale te fum mu ko yemale mhm. jekk na trop ndax lii coupe du monde la <laughs> Afrique kenn musutoon yegg bu ay demi-finale te comme ambassadeur nous mu ko waxee des na possibilité gagner médaille de bronze ci coupe du monde Mboup rappelé na ko aussi vraiment objectif bu rëy la yaakaar pour Reug Reug ak ak li mu dese ci ay joueurs waaw <laughs> vraiment ah, en tout cas dinañ ko ko dinañ ko ko yéene parce que Reug c'est un entraîneur boo xam avec beaucoup de nuñ koy waxatee am fugg dafa am passion ci lu muy def et xam na ni euh, ay joueur am am nañu capacité euh, je pense que ni xëy na troisième place yi mën na ci def loo xam ni jaloore lay doon mm-hmm. euh, pour moom feneen fu nu dem mooy université Cheikh Anta Diop de Dakar xam ngeen étudiants yi ñoom dañu bëgg football boobaak léegi ñi ngi continuer di xool fa nga xam ni mooy seen fan zone tey nag Abdou Wade demoon na fa ak Mamadou Samb ñu seetaan liñ ñu indil mbooloo mu takku moo ñëwoon jàppale gaynde yu mujj ci mondial bi di gaynde atlas yu Maroc si fan zone université Cheikh Anta Diop bu Dakar bi étudiants yi bëri woon na si ñoom ñu amoon yaakaar gis Maroc jàmbarloog Argentine bu Léo Messi dimanche. wante bitu fajar bi France dugal ak joueuram bi di Théo Hernandez tax na étudiants yi tàmbalee am njàqare gune regrag yi di jéem a góorlu ngir dugal wante France ak seen taxawaay baax lool

mais Maroc tamit nekk équipe boo xamante ne day jouer équipe bu décomplexé la dañuy mener un bon jeu ils ont un bon plan de jeu et ak ni ñuy fubalee ni mën revenir au score. lenn si ndongo yi faral France am yakar ni France ak Mbappé dinañu gën a làbbali. Inch'Allah, on va marquer deux buts. Oui, la France. Oui, pas deux buts à zéro. si biir deuxième mi-temps bi Maroc di jéem ngir égaliser France di jéem a fexe dugalaat beneen but. ci loolu sax la France rayé match bi ak ki nga xam ni mooy Kolo Muani muy dugal deuxième bi wu France bi. lenn ci ndongo yi tàmbalee ñibbi. te 2-0 heure bii dañuy gagné ak ni ñuy fubalee nii dañ leen di gagné ko moo tax non je ne l'espère France daan ñaari bal ci dara. mënul dara France mënul dara. xol bu xol bu jeex lañ ci am mais nag euh, du def lu dul sant yàlla comme ni ko ñëpp defee comme nous sommes des musulmans dañuy sant yàlla ci li nga xam ne defet la euh, Maroc am tey aussi tamit ñu xam ne euh, Afrique lii du njëkk la ci Afrique donc lii déjà trophée la déjà aussi ndam la si Afrique déjà aussi ndam la si monde arab léegi dañ dañ ciy sant yàlla te aussi tamit am na beneen trophée bu ñu war a jël bi la troisième place. bàyyiwuñu bàyyiwuñu ba dem nañ ba fin xam am nañ espoir ba fin football nañ. Euh, joxe nañ daal ils se sont tout donné pour vraiment réduire au maximum euh, le score. France nak moy jàmbaarloog Argentine dimanche Maroc nak dina fexé ba djema djéxal mondial bi ci note bu rafet ci digganteem ak Croatie nga xamné ku ci daan day bok ci podium coupe du monde bi voilà foofu lee ci université Cheikh Anta Diop de Dakar ñom nga xamni nak dañu bëgg football lool té diko ko dund euh, bu Sénégal di jouer ak it euh, li nga xamni moy dess ci coupe du monde bi xamna dinañ fa délu ci euh, ci nga xamantene moy finale bu mag bi dimanche inshallah allah Argentine ak France Salam deug la dinañ ci jëm France Argentine dina nek ben ben match bo xamantene ne ñaari ñaari système football lay doon ñaari genre lay doon parce que Amérique du Sud ak européens est toujours sen football fay am différence mais xamna dina nek match boo xamni dina neex setan seetaan. waaw match bu affiche bu rafet la. Mm. affiche bu neex la affiche bu ni xaar la parce que football dina am. bon euh, souvent aussi ñun au-delà du football bi dañuy xol ni équipe yi di dikkee. Mm. ak wuri wi nan la ñuy quoi mm. donc ñun dina ci am solo toujours di rappeler que ni. Il y a des records à battre du côté Messi, ouais. mais euh, Mbappé tombe également faire bouger battre record parce que defe Messi ak Mbappé tey tolloo nañu ay buts cinq ku nekk de nga cinq buts mm. donc le meilleur euh, buteur de ce tournoi là ci leen koy définir bon mais euh, euh, en tout cas ce sera un match en tout cas à issue mm-hmm. très incertain. Euh, euh, incertain euh, avant may egg si Mamadou Diallo Paris Saint-Germain kon dans tous les deux cas moom dina am champion du monde. Euh, ah mais c'est ça hein, parce que nous, avons ñëpp fa parisien voilà nous... avons koy. tout ñoom ci réseaux ah, final parisien au final c'est un parisien qui sera champion du monde. c'est clair c'est clair Nous, avons ko nangul aussi mais vraiment. ça va être comme coach Salam nous mu ko final indécise entre deux des meilleurs joueurs du monde actuellement. parce que Messi du coupe du monde bi rek le la

foo xamante ne ku nekk yaa daw di daw donc vraiment il y a torop opposition boobu noonu entre des argentins yoo xamante ni une indi hargne ak grinta te gagné une coupe du monde depuis 86 si je ne m'abuse Il y a France moom France, moi tenant du titre donc waaw dañuy nous kan moo gën Mais il faudra aussi compter sur les argentins vraiment c'est vrai benn opposition lay doon entre expérience Messi mais ak jeunesse Mbappé ak fougam vitesse Et c'est vrai que loolu dina nek ben match bo xam ne euh, ce sera vraiment intéressant oui Fatma dinaa ko jëm mais nga may ma rek juste de féliciter encore les Marocains mm-hmm. parce que wax nañ ko fi né woon li ci ëpp solo que na Afrique def ben pas pour demi-finale te def nako euh, après le match démb bi ku né monon na xam lu né mënoon na xew mm-hmm. mais comme ni wax rek bu ñu xoolee logique logique bi moo am ni mais d' abord foog ñu félicité leen ñun africains ñu fier suñu bopp aussi tamit pour man c' est important parce que léegi nag dinañu permettre année yi di ñëw ñu mën a xëccoo ji dem jëli ji coupe du monde incha allah léegi euh, pour ñëw euh, France Argentine match très difficile match buy metti boo xam ne euh, mun nañ am ñaari jàngat fii may tiitee mooy Argentine équipe la boo xam ne dafa am taxawaay dañuy reyante ba mu mais beneen côté France dafa am attaque comme ni wax toujours neexul dékku comme tey nga am Mbappé si côté bi am euh, Dembélé si côté Giroud ak mais même bu dul yooyu mais Mbappé Dembélé dañu yor technique boo xam c'est extraordinaire mm-hmm. te bu ñu amee couloir bi maintenant j'ai peur que dina nekk match boo xam ne carton rouge dina am j'ai peur que dina nekk match boo xam ne argentin yi bëggee gagné match boobu il faut que ñu teel a stop français yi surtout ñi nga xam ne ñooy jaar si côté yi. man je pense que Argentine dañuy liggéey ñoom ñëpp pour benn jour pour Messi mais Messi xam nag li ko war xam fan la war a jëlee ballon bi fan la war a def une touche fan la war a def deux touches ak fan la war a accélérer et je pense que boo xoolee ni mu fubalee nii Messi

dañ leen di sant di leen gërëm parce que liggéey bi luñ koy waxee saa su ne chaîne la te chaîne boo xam ne ku nee da ciy jàpp euh, Madiagne itam ñu ma koy wax mu mel ni nag suñu xoolee euh, li nga xamante ne ñoo nekk ci régie ba ñoom Malick Koro ñoom euh, Michel Diatta saa su nekk ngeen jàpp ci liggéey bi daf ci am solo par yenn saay comme duñ leen gis ñu wax seen tour ñu xam ne liggéey bi am na solo te ñun ñëpp ñoo ko bokk di ko def salaam laam defe naa loolu itam bok na ci li nga xamni moy mooy defar euh, li nga xamni moy mooy suñu liggéey parce que du kenn moy def du ñaar ñooy def mais ñu bëree bëri ño nek ci ginnaaw té kenn du leen dégg sa suñu mais xam nga lépp loo gis. Mm. Euh, équipe bu bu xarañ. Mm. bon daf ci baax. Mm. Euh, ku si nek am rôle boo jouer wa mën nañu wax ni élément yépp maillon chaîne lan. effectivement man dama leen di sax am sen kersa. parce que vraiment plateau bi rek la ñuy gis. Mhm. mais réussite plateau bi. ñeneen ñokay préparer man ñooñu la dama leen jox cër. Mhm. mais bu di associer wu également ci li nga wax pour leen ni vraiment diarama. même bu ñu def seen liguey mhm. la façon de le faire mom mo différent. motax lepp loy def. il faut choisir des gens passionnés. effectivement bon yal na leen ko yàlla fay seen njaboot. Amen, c'est gentil euh, Mamadou dañ lay jaajëfal parce que léegi ñu pare. waaw ah, dama leen di remercier parce que tamit euh, comme ni ko grand bi waxee cest dina xam nga liggéey dina am mais maçon yi si ginnaaw la ñuy nekk cest dina dire bi rek la ñuy gis walla chef de chantier bi te tey tabax bu baaxee parce que kii ko doon tabax la parce que ndante ñun dañuy ñëw toog rek wax mais ñoom ñi nga xam ne ñoo yor caméra yi di préparer yëpp déjà dañ leen gërëm aussi tamit man di am contenté parce que je pense que c'est la première fois que ma ñëw nii RTS passé euh, émission bi surtout coupe d'Afrique wala coupe du monde plutôt vraiment ak kontaante la am nekk ak ñoo xam ne vraiment am na respect am na cër parce que pour man loolu rek moo ëpp solo man nit ku ne lenn rek nga moom mën a rayee mooy nga jox ma respect jox ma cër parce que <laughs> exactement parce que aussi <laughs> tamit exactement parce que aussi tamit boo loolu boo ko joxul nit man soxloo ma pour nekk ak aussi tamit comme ni ñu koy waxee dinaa leen remercier encore parce que salaam moom nee nañ déjà mooy euh, euh, comme ça ti euh, Idrissa Gana Gueye yow Sadio moom nee nañ mooy Kouyaté yow nga nekk Nampalys moom mu nekk gardien de bi mais dama leen di remercier pour suba repos bi ngeen ma may parce que boobu léegi aw ma repos. <laughs> repos la lii di <laughs> jeex. li may nga ma repos devant si télé bi ñëpp. waa RTS Sénégal gi may seetaan yëpp. <laughs> xam naa suba moom dinaa absenté mais ngeen baalal ma ko ba vendredi incha allah dinaa fi nekk. voilà loolu moom mënuma ci dara xam naa ne mënuma ci dara mais en tout cas ce qui est sûr mooy ni que c'est pas professionnel te ñun ci professionnalisme la ñuy dox professionnel salaam mooy loo commencé ah da ngay dem ba ci cappaandaw mais damay laaj est-ce que fii ñëpp a commenté est-ce que fii ñëpp a commenté salaam salaam absenté na kii absenté na kii absenté na maa yow fi nekkoon saa yi ndëg suba ndëg ma ne Sénégal gi yëpp maa ngi leen di ñaan ngeen jéggal ma suba incha allah

Ah. match yi jot a jàll bi yi ñu jot am yi gën a rafet dinañu am yoo xamante ne dinañ ci waxtaan bu baax a baax mais surtout ci communication wu ñi nga xam ne ñooy coach yi ak joueur clé yi nga xam ne dañ leen doon xaar gisuñu leen